wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat Touba ca kanam lu yees ci màggalug 2019 les grandes expositions de Touba ca kanam mbokk yi waaw fii lay xewee fii ci buntu kër Serigne Abdoulahi Mbacké borom dër bi jàkkaarloo ak bërëbu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul mbokk yi Touba ca kanam nee na képp ku màggal si ngalla na nga yegg si ci barab bi nga xam ne seen barab la ñetti at yi nga xam ne nii Touba ca kanam am na ko ñu fas yéene topp seen ñaar téeméer yi tànk baa ngi tànk baa ngi ci exposition bu am solo ci liggéey bu am maanaa bi nga xam ne def ngeen ko ci ñetti at yi ci seen ñaar téeméer yooyu Touba ca kanam ne danañ ut bâche bu mucc ayib dajale fa mbokk talibé yi ñu ñëw ñu wan leen li ngeen jot a def ak li ñu jot a def kon mbokk yi les grandes expositions de Touba ca kanam bu ko kenn wute nga la yow miy màggal si gànnaayool sa ñaar téeméer sa junni fu sa kattan barab bii nag ñàkk ci teew wóorul mbokk yi fii lay xewee Mbaye lan la diaspora bi wax. diaspora bi nee nañu ak Touba ca kanam ñu defal Cheikhul xadim Touba ba mel ni Makka ak Madina ci naka kenn ku ne jaayante ak Serigne Touba jënd benn carte membre cinq mille francs waaye jaayante at mi douze mille francs ngir lan nu mën a am deux millions de mourides ngir lan weer bu dee ñu am deux milliards ngir lan. ñu am vingt 24 milliards ci année bi defal Serigne Touba dëkkam bii di Touba ba mel ni Makka ak Madina. waa Afrique ci njiitul Serigne Khadim Thian ñu ngi leen di woo ci les grandes expositions bi am fii ci waa Europe ñu ngi leen di woo ci njiitul kan Baye Serigne Gueye waa Asie ñu ngi leen di woo ci njiitul kan Serigne Amady waa Amérique ñu ngi leen di woo ci njiitul kan Serigne Sony bu Seck ngir lan képp ku màggal si fii ñëwal egg ci les grandes expositions ngir lan 2016 ba léegi dërëm bu ngeen def daañu leen wax fan la dugg ak Touba ca kanam laaj lu ñu man waaye def ko fu ñu xam yàlla nañu yàlla boole ci ñu yóbbu dëkk bu sel biir tuba ca kanam seex. rendez-vous bi. mi ngi war a nekk fii ci. ci buntu kër Serigne Abdou Mbacke borom dër bi fii ci màggalu Touba incha allah. ñàkk caa taw daawul. wóorul. baat. الدنيا بجاي خير ما نبات